ahlan bikum tey la ñuy màggal ci àdduna bi bés bi ñu jagleel taskatu xibaar yi ngir ñu am seen sañ-sañ def seen liggéey maanaam liberte de la presse waaye réewum Sénégal presque moo jël ndaare ci réew yi nga xam ne taskatu xibaar ya xamuñ seen liberté fañ leen di bundu xatal seen liggéey ña nga ca cent quarantième place bés bi yéene kaay ne li waral nag classement àdduna bi Sénégal bokk ci réew yi deltu ginnaaw ci liberté de la bokk na ca Pape Alé Niang journaliste bi ñu jàppoon tëj ak yéen Pape Ndiaye wal fajri journaliste ba nga xam ne ma nga ca kaso ga si du quotidien ne suñ naxantewuñ wala nekkuñ di gént waaye dëgg gi mooy tolluwaay journaliste yi Sénégal doy na waar de ah. yaaw seetal Bamba Kassé njiital Synpics nee na benn journaliste rek buñ ko tëjee kaso loolu fa jéggi dayo Ibrahima Lissa Faye président appel ne c'est la première fois mi ngi door di am Sénégal ñuy feete bés bi ñu jaglal liberté de la presse fekk ab journaliste mi ngi ci kaso gi mësta am de waaye tey am na enquête yéen a kaay na xam ngeen Pape Ndiaye journaliste ma ngi ca kaso ga waaye Babacar Touré kéew la journaliste moom boo mutu ca kaso ga la jëm te a garaaw mooy fañ koo teg moom Babacar Touré mu am juróom benn yoon retour daw rawale ko urgence hôpital yor yor yéen a kaay journaliste Sénégal yi kay bëri na ci ñu sonn de xamuñ sañ sax def seen liggéey normal yéen a kaay bi wane photo Pape Ndiaye wal fajiri Pape Alé Niang Babacar Touré Moustapha Diop wal fajiri express yéen a kaay ne journaliste Sénégal yi sonn ñàkk kaaraange te xamuñ dara Mamadou Thior koret ne xab journaliste buñ ko jàppee tëj kaso fekk liggéeyam rek la doon def loolu fa ñaaw te mooy wane ne liberté de la presse fa deltu ba yegg ca nañ ti tareet kayit ba ko doon tere mu génn réewum Sénégal maanaam contrôle judiciaire ba wal fajër yéen a kaay ne kaay leen faa leen di wan son Sonko photo jonkan ca biir Gàmbi info yéen a kaay na ko fa wiole contrôle judiciaire ba waaye waxal na boppam nag moom Sonko nee na faa doon dem Ziguinchor jaar Gàmbi ngir jeexal sama contrôle judiciaire bi nga xam ne ñaari at ak ñetti weer a ngi nii ñu tere maa génn réew mi te loolu du yoon ndax gis ngeen instruction ba maanaam enquête bi keroog bi mu jeexee ci la sama contrôle judiciaire jeex ci wàllug yoon waaye ci lu jaarut yoon ci la attekat bi Omar Maham bañ maa jox sama passeport ngir ma génn réew mi contrôle judiciaire bi moom yoon jeexal na ko bu yàgg yéene kaay bi ne Sonko désobéissance civique ba mu waxoon moom la tàmbali waaye nag li ni mën na koo jural gaa yi teg ko loxo man ma teg loxo l'évidence yéene kaay fekk fa farandoor yi Bougane Gueye Dany ya waa gëm sa bopp yi fa ñoo wax na ñoom demu wuy ji ca jalagu njiitëram Macky Sall fa ñoo bañ ba tëdd ci naaj wi gëm sa bopp ndakaaru ñoo xam le li ni mel 24 heures kaay ne man faay laaj ca ndax Bougane Gueye Dany bokk ca dialogue ba Bougane na ko faa lay tontul bopp gis nga dialogue xalaatuma caa dem sax naan maa ngi cay bokk ndax jamono bi nga xam ne njiitëram mi ngi woote dialogue jamono jooju àq ak yelleefu doomu yi fañ dañ ko salfaañe ci réew mi turbine yéen a ne man fay laajte dialogue bi nga xam ne wàllu dil la kan lay xamal njëriñ enquête yéen a kaay mel ni ku naan ko xanaa waa PDS yi ndax ñoom nee nañ fa bokk ca dialogue ba waaye nag fa ñoo teg ay charte su ko makk nangoo ñu dem su ko nangul nag fa ñuy bàyyi yaaw seetal fa ñoo bëgg Karim Wade nañ ko xàttewaat seetal ko na defu dara sàccul alalu réew mi ndax su fekkee fañ koo baal amnistie loolu mooy na ka moo def su boobaa sénégalais duñu woteel Karim ndax ñu baal ko te moom sàccut ñaar fa ñoo bëgg tamit mbindu mi électorale yi xam nga fi mu toll bi jeex na fa ñoo bëgg ñu wéyal ko ba njeextalu weeru sulyee su ko defee sénégalais yépp mën a bindu enquête yéen kaay na PDS tontu nañ kat Mimi Touré le quotidien yéen kaay na dialogue bii kay fa tasaare waay yeewi askan wi ah Ousmane Sonko nee na du dem dialogue yi Khalifa Sall nee na fay dem ndax moom fa bëgg a bokk ci wote yi amnistie lu ko mooy fay fori new l'observateur mel ni ku naan Sonko tamit fa nar fori new ñeneen ña fa ñoo jàpp ne aha kay ndax Sonko loolu fay firndeel ne mooy opposant dëgg ci kanam Macky beneen bi ci topp dialogue politique ak ku jégi bu ca Ousmane Sonko bokkut du saf xorom di loolu problème la <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja moo ne lu ëpp ñetti téeméeri junney doomu aadama bindu nañ ci liste électorale bi biñ ko tàmbalee ak ba fi mu jeexee te mooy yéen a kaay ñu ko xamal te ba bés bu mujj bi nit ñaa nga rang fees dell vox na ko faay dëggal li nga wax ndax ca Touba bés bi ñuy arrêté mbindu mi fa xam nit ñu bëri ñu fa nekkoon war a bindu gars yi na leen jeex na ay primo votant léegi nag fa ñoo mer ba futtu fa ñoo daal di rajaxe tojate sous préfecture bu ndaam ñetti bureau fañ ko rajaxe ba mokk weer ya sous préfet bu ndaam Babacar Mar nee na faa maar ci yoon nag fay def liggéeyam am na koo xam ne teg nañ ko ca loxo la mu teg loxo moom njiitu réew Macky Sall ba daal di koy inauguré daloo mooy daluwaay yi boo xam ne ay mécaniciens ak artisans yi liggéeykat yi ñoo ko moom métier automobile daal ñoo ko moom lii yéen kaay moo ñu ko xamal Le Soleil yéen kaay ne loolu nag jéego bu njëkk la ngir yaatal xataayu ndakaaru laas yéen kaay na leen hé njiitu réew mi fa mel ne de fay xett boobaale maanaam fay ngoro artisan yi bés bi yéen kaay ne tey tamit mooy bés bi ñu jagle ci àdduna bi jant bi Sénégal nag taxawaayam ngir am courant buy bàyyee ko ci jant bi fës na lool le mandat yéen kaay moom fa xëy ñu xamal xana lan moo tax réewum Turquie seen entreprise yi presque fi mu toll nii ñooy tabax ay aéroport biir Afrique ak ay pont tàggat yaram gayndey Sénégal yi ca Coupe d'Afrique di 17 maanaam ñaam fukkat juróom-ñaar xawtu ñu rey Algérie de hee fañ leen a jàpp di leen mbuqi di leen mbuqi di leen mbuqi fañ leen a mbuqi ba ñu bëgg a dee ñetti bal ci dara 3-0 keneen ku ñu mbuqi ba ñu bëgg a dee mooy Real Madrid fi mu toll leer na fori na neew championnat bi ñàkk na ko ndax Barça fa mbuqi démb donte na ña sonn dëgg nag mooy wax naan ay docteur leen di faj ay doomu aadama te xamuñ benn lijaasa buy